Mesdames, Messieurs, nos chers amis de la presse, le président Ousmane Sonko est arrivé dans la salle. Nous allons débuter le point de presse. Je le rappelle, il s'agit tout simplement d'une déclaration de presse. Il n'y a pas de questions. Donc, la parole est au président Ousmane Sonko. Bismillah Assalamualaikum ñu ngi leen di nuyu di leen ziar ci aljuma bi di nuyu di jaajëfal suñu mbokk presse bi di nuyu bépp sénégalais boo xam ne yaa ngi ñuy suivre tey ci waxtaan bu gàtt bi nga xam ne nañ ko am ak yéen ñoo wote woon waxtaan wi ñu sumb ko ci diir wu gatt nak ngir waxtaan ak askan wi ci lu ama am solo ndax dañoo nekk ci <clears throat> jamono jo xamne ne mën nañ ne li tubab di wax tournant moy jamono jo xamne la fi Senegal senegal ak Afrique wara jare sigi ba faw <clears throat> waye lañu ñu mën a jaare nooteel gi ñu noot euh, depuis juróom benni xarnu juróom benni siècle tey nooteel googu wéy ci lu yàgg yàgg yàgg yàgg ba suñuy doom ak suñuy sët ak suñuy sëtaat nar ko dund ci ni mu gën a jafee sax que ñun ñii dañ koy dundee waxtaan wi nag dañ koy tënk ci wenn mbir moo xam ne defe naa àjjuma tey jii la mat ab semaine gannaaw Macky Sall ak gouvernement am ba ñu jàllalee assemblée nationale benn dogal benn loi boo xam ne lu dangereux ci réew mi ñu ne woon nag nañ ci waxtaan. ma biral léegi ni waxtan wi solo ci du waxtan ci dimension technique loi bi ndax lolu lañ ci waroon wax wax nañ ko kérok japp na it bob ba léegi avocat yi wax nañu professeur université yi wax nañu praticien droit yi wax nañu ci li jëm ci walu technique waye japp na ni sénégalais yu béré béré béré natt nañu mbir mi wax nañ ci kon li may waxtaan ak yéen tey mooy li nga xam ne moom lañu baaxoo ñun ci suñu wàllu politique mooy di yee askan wi di xippiloo askan wi ba ñu xam lan moo nekk ci gannaaw lépp loo xam ne Macky Sall ak nguuram ñu ngi koy sumb loolay solos waxtaan bi tey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 muy loi antiterroriste bi nga xamné Tony Blair bi muy nek premier ministre Grande-Bretagne en 2006 moko ko ne loon pas may fàttali collègue ni bi mu koy fait dafa fekk mu amone attentat yi à Londres en 2005 néna ba tay ji dé déggaguma ñu né Sénégal terrorisme amna fi te bu ñun rek sénégalais entre ñun terrorisme du fi musa am parce que duñu peuple bobo mais loi bi fa lañ ko jëlee boo loi boobu jël loi bii Macky Sall jàllale da ngay gi gis ni dañoo dem copier rek coller ko wayé nak mu am luñ ci yok ndax amna lo xamné dans une démocratie ken sañu ko Tony Blair mom ci bopam amna lo xamné sañu ko.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

diggante 2017 ak légui ñëw na fi gën sa gatt ñent yoon novembre 2017 février 2020 mars 2021 bi té sa su ñëwé nak dina tëjoog Macky Sall lu jafé sénégalais yépp sa su ñëwé l'internet. leen internet légui ngeen def visite Tony Blair au Sénégal dina tëjoog Macky Sall Tony Blair nak ñëpp xam nañ ko mu doom ci manipulation ethnique ñëpp xam nañu. Le mu jotoon liggéey ca Bosnie Kosovo ñepp xam nañu Le mu jotoon liggéey ci Irak ndax geeru Irak bu amé mom bokk na ci ñuko gëna gën ndax mo né won Saddam Hussein dafa yor ay armes nucléaires koku tay moy un des premiers conseillers du gouvernement du Sénégal demb rek ma ngi ci benn site internet ñu naan Ablaye Diouf sar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 bi mu rey bi ñu reyee Kadhafi nga xamné mom mo doon verrou fofu lañu jël ay armes jël ay pick-up tek ko ci traverser tout le désert pour ñëw déstabiliser le Mali loolu ligéyu France la ligéyu Nicolas Sarkozy la Sarkozy bobu diggante 10 et 14 juin bi rek masalan bala ñuy une semaine bala ñuy andi loi bi Sarkozy mi ngi won fi Dakarou té dajé nak ñom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 26 mai 2021 bi rek mi ngi won fi ap mercenaire la léegi bo xamné Afrique yépp Togo Sénégal fu day dem ñukoy koy ay contrat yu duun nak mu ne moom moo leen conseiller ci mbirum lutte contre le terrorisme Mauritanie gi barki demb la fa joggé parce que abdul Aziz bu may nek président da ko jëloon signaloon ko ap contrat diko faylu reuy lu mu ne da koy da koy defaral ay texte ci lutte contre le terrorisme Abdul Aziz jóge na fa delluwaat na pour renouveler contrat am ak ku bees ki fa ne dugat Sénégal te sa su ñëwé nak dina dajeeg mom waaye su paree dina dajeeg sen magistrat parce que dafa am ay magistrat Macky Sall nak magistrat APR ñii ma wax ni ñoy ñi nga xamné tay ñoy ñooy Macky Sall ñom ñépp nak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 c'est des sociétés de mercenaires yo xamné buñ liquider Ousmane Sonko ñu def ko traité gouvernement Sénégal Mais wax sommes ni ñun ñi ñëpp ñi ñëpp leen ñun pour soxla ay investissement soxla transfert de technologie Nous soxla pour luy industrialiser suñu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 C'est le Sénégal Nous wax surtout la France Nous avons suñu problème de France a jóge ndax de alalu France du France suñu autorité yi la détournement dernier publics du France jël di France. Nous sa de du France jaay suñu ressource naturelle du France Nous am nañ ci de responsabilité ndax sa nous dañuy ut préfet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 juróom benn siècle depuis esclavage jël suñu mam note dem jaay té nénañ nañ kenn du ko wax nak mën nañu wax ci li dalon juif yi mën nañu wax li dal arméniens yi waaye lu dal nit ñu ñuul yi nga xamné des millions de personnes lañu jël fi ñi dé ci géej gi ñi ñu sanni leen ñi ñu takk leen dem jaay leen kenn du ci wax té ñu waroon ñu compenser nañ ko défé ak yahoudi yi def ko keneen ak keneen dañu waroon compenser ñu ñëwaat ñu colonisation par force de note seeni réew di alal di leen imposer nous bëgg ku avons duma ku France tey la France jël euh, euh, tànkam teg suñu baat rek de ni euh, Chauvin ak Floyd d'ailleurs c'est pas étonnant que nous avons Chauvin d'ailleurs de dafa a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 moy xoolal li xew Mali nañu parce que dañu interrompre processus de transition wax processus constitutionnel mais mais processus de transition bi dañ ko interrompre nous Tchad bravo doomu Idriss de bi te dafa interrompre le processus constitutionnel lol hypocrisie France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

jàpp ni avenir relation diggante Sénégal ak France ci ñooñu la mën dépendre parce que sous France comprendre ni méthode yoy ñu doon utiliser ñoom jamono fokaar ak ñoom seen méthode yooyu tout dem bu boba peut-être collaboration dina continuer ci yenen anam moi gagnant gagnant bu comprendre nag dina fi jóge ci anam goo xam duko neex kon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 jaar ci ab désert bu ne yambala nga milliers de kilomètres carrés la pour ñone ñogi dal ci Sénégal loolu mënut am mënut am Sénégal nit traverser le fleuve Sénégal yor ay pikam yor ay truc ak liñu am force de défense et sécurité sen professionnalisme sen qualité loolu amul Sénégal nañu Sénégal. di sommes askan wi may Guantanamo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 pour la première fois une menace politique et citoyenne c'est important menace politique et citoyenne parce que nous sommes du ñun rek acteur politique mais conscience citoyenne bi juddu léegi de développé rapidement ci Sénégalais ba ci si wàllu li nga valeurs, nous suñuy valeur la mu am ñu jóg ne ji am nous loo xam ne dañu que imposer loolu moo leen jaaxal moo may wax ñépp loi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

nga ne gëna gën dangereux luy danger Sénégal attan jaay wa kërëm yépp pour ay intérêt personnel am ngeen dégg ko mu taxaw menacer né day dissoudre Pastef ñong koy xaar parce que loolu lañu bind ci loi bi dama né aduna ba mu daj réew aduna yépp américain bu dëkk France amna sañ-sañu joxe cotisation ci parti républicain wala parti démocrate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 J'en profite d'ailleurs pour lancer officiellement la seconde phase du programme Koutour. moi, les sénégalais yépp ñun dara ku nekk ba ku nekk Liechtenstein wala fan ku ci am yow mécanicien bi yow menuisier bi yow marieuse, bi yow ku gis ci li ñuy yow mi nekk bitim mu nekk ku ci am choses un million de sénégalais 500 ñu francs 500 millions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 euh, vice président HSE MIGI Total Afrique secrétaire général Total Afrique Minifi euh, vice président digital marketing réseau Total Minifi euh, PCA Total Afrique président Total Nigeria président Total Afrique hein? vice président Cosmos Energy vice président exécutif Interoil Oil Ce vous koy cité dina trop si nous ñëwee nag dem tëju nga xam ne seen lu signature lu sur le dos du peuple. Nous ci sama programme depuis 2019 wax ko avant programme bi wax ko ci sama téere bi ma 2017 xaw 2016 ci pétrole bi pétrole Sénégal gazu Sénégal zircon Sénégal du Sénégal sénégalais yi ñoo ko moom keneen moom ko ko sénégalais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 parce que nak note gi ñu note d'abord note psychologique la nek sa rew amo sañ-sañ ne li moy sama intérêt rew li sama waxal mu ne France ils sont trop puissants moytul ñi dañuy dal sa kaw ta ñom ñu am sañ-sañu tok sen rew di wax ci ñun il faut mu donc li nak lan mo ci objectif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 ñu am nag ñuy wër di leen waxal parce que dañuy préparer opinion bi psychologiquement dañ koy préparer psychologiquement dégg ngeen fii depuis quelques années ni ñi préparer scénario terrorisme bi japp nañ fi ay imam sonnal leen noggatu leen lotal leen traité leen ci anam go xamné indigne nga traité ci nit bu mel nonou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 C'est pour préparer opinion yi la dégg ngeen ministre affaires étrangères dem France 24 xamu ban télé Mohamed it Wah wax wax wax ne ay terroristes ñoo fi nekk ay léeg léeg léeg T'as te quoi koy wax nag su dee ci média mom. toujours ci média France lañ koy waxee. ñu tegaat ci ministre de la justice génn mom gën catastrophique moom wax la même chose demaat Fuuta.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 Euh, musuwaar yi génn nit ñi di jooy ak ñi di xalangoog ñu naan bi est-ce que sax newuñu ci buntu télé beeg lu ne ñu wax ko loolu yépp pour préparer psychologiquement la ñuy waaj a def ñoom la dinaa ci ñëw la ñuy def mooy lan damay wax sénégalais yi ne acte terroriste bu fi amé Macky Sall ak ñi mu àndal def parce que ci loolu lañu nek ci loolu lañuy dox attan nañu lo fi bomb créé fi acte terroriste pour né liñ leen doon wax yépp ngi ni nak daa di gaawantu jël ay pouvoirs spéciaux moy dolel Macky Sall né ko am nga sañ sañ ku yëngatu nga dóor parce que le pays est en guerre budé ci corona bi rek la fi andi won lolu ku yëngatu ñu dóor parce que nee dañ doon guerre ak ben microbe bu kenn gisul ku yëngatu ku fi 19 h fekkon nga nga ngay dogg wacc sax amo car ñu fekk la fa duma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 lol la wajal té bu dina avec la complicité du procureur de la République Bassirou gay parce que nous, nit mu taxaw ne man xamna ay terroristes terroristes qui bir Sénégal man de Ousmane Sonko suma ko waxone ben détachement GIGN momay jël un goudi sama kër ku ko ci ñi fi ñu jël la ay nit di lambar lambar ci télé yi wax ba ne serait-ce qu'à titre de témoin. Ça veut dire qu'ils sont complices. Lolo, nous sommes tel abdou tel teel wax sénégalais parce que dafa am que nous ne ñun ko nangul méthode que nous avons ko nous France défend Mali nous je def Burkina bu nous réew dinañu nous ba commencer attaquer forces de défense et de sécurité Nous dit, que nous avons dina Sénégal parce que duñu réew

li la Macky Sall di waaj mo wax ko Sénégalais té pour mu réussir ko nak il faut mu té ay ay banqaas bokk na ci magistrature bi wala justice bi suñu né justice bi nak du du du magistrat yépp waaye dafa am ñent ba juróomi poste yo xamné dégg na waxtaan ak benn magistrat mu ne ma bi ñu dañuy dañuy proposer ay réformes. ay Burkina Faso yi fii lañ doon ñëw di jàng ci ñun waaye léegi raw nañu ñu parce que Burkina Faso boo demee post post magistrat bu libre appel ak candidature la appel à candidature mooy dañuy woote ne magistrat bu remplir critère bi ak critère bi mun na déposer dossier ñu def sélection bañ ko bëggee indi Sénégal Macky Sall ne post procureur poste doyen des juges cour suprême conseil constitutionnel ak xaw ma ban kooku moom mënuma bàyyi ñu def ko loolu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 nous avons di même si nous li sante, leen baaxul ci askan wi ma ciy profité nag di wax général Moussa Fall ñoo koy félicité ci nomination am de ñaanal yalla mu oyofal ko yen bi wayé na donne un républicain na donne un homme d'honneur et un homme de loyauté pas vis-à-vis de Macky Sall vis-à-vis de son peuple ndax que si ay Macky Sall ko na statut gendarme bi mu am askan wee ko ko jox la même dignité que Augustin Tin. am la même dignité que ki police ba fi combat politique du combat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 day dal ci kaw askan wi parce que yéen yéenay askan wi amul lu askan wi di dund sa dund nous ko ma danel nak ci lancer un appel aux Sénégalais et aux Africains rawatina ndaw ñi diaspora bi élite intellectuelle yi kilifa ñi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 te ñoñu nak la wara jël exemple ñi nga xam dañ leen nootoon ni ñun ñu fexé ba mom seen bop te tay ñoo note aduna amerique ci la bok Chine ci la bok Inde ci la bok keneen ak kenen ci la bok Afrique rek ngay gis ni ba légui ñun rek la note dafa melni ñun rek ka yewogul ba kañ dafa jot nak ñu mom suñu bop di décider suñu bop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 comme ni Ousmane Sonko amé sañ-sañ dem def ay te kenn duko déranger lolu du lolu moy combat bi kon bu tassaro ci ay combat xam ngeen combat bi lan la mom lañu wara liggéey bës bu né waajal ko moy ñaar la ba fi nangu fi Sénégal ku ñu duñ ko nangu ci Afrique nangu fi Sénégal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 comploter contre les opposants, il faut des noms de code français. Vous avez entendu toutes ces déclarations disant que les Sénégalais qui manifestaient, c'était des terroristes. Vous avez entendu les déclarations du, ministre des Affaires étrangères, qui semble avoir complètement perdu la boussole, la pauvre dame, sur France 24, qui chantonnait la même chose. Vous avez entendu les déclarations du ministre de la Justice. Lui, c'est la calamité.